al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa daara ji maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp eh, man Mor Ndak siwaat rek ginnaaw bu ma déggee réaction sama mbokk yu baax yu tel yooyu eh, Cheikh Tidiane ak ki nekk Johannesburg ak ñoom ñëpp yéen sëñ yëpp eh, sama ma am xalaat du ma ci wax li ma ci bëgg a wax rek mooy ah, Cheikh Ahmed Tidiane eh, jërëjëf ci ci ci ci leeral yi nga def noonu la ñu lay demee li wax rek noonu la eh, waaye mbirum statut social laa bëgg laa fàttali rek wan le ak ak ñi ci des yëpp ni baat bi amul solo maanaam stat statut social mooy statut mën nga ko tuddee ci ci nasaraan statut particulier waaye baat bi amul solo eh, jëmmi baat bi jëmmi jëf ja moo ëpp solo baat bi te bu fekkee ne dañ ko xoole foofu bu fekkee statut social mooy dafa am mooy particularité bo nga xam ne ni dañu ko gis ci doxalin bu wuute ak statut général bi ñëpp bokk bu fekkee ni loo xam ne dafa wuuteeg li ñëpp bokk doxalin bi ñëpp bokk nga doxale neneen moo tax ñu ne social spécial euh, kon danaa jàpp ni fii ñuy waxee déjà rek Touba statut spécial la nekk waaw statut particulier la nekk fii ñuy waxee ci boppam ndaxte moom rek moo fi commune boo xam ne commune la dëgg la waaye teewul commune la boo xam ne ay élection falul maire ba ay élection falul conseil municipal ba kon loolu wuute lan loo na ko ak yeneen communes yi nekk ci biir réew mi yëpp euh, ni ko ki ki ma fekk ci bunt bi bi Mbàkke ak euh, Cheikh Tidiane waxee yi tamit euh, Touba amul dara luñ ko ko xeexal wala amul dara loo xam ni dañ ko koo defal Touba mooy defal boppam rek di jëfal boppam deuxième ville bi noonu la demee ba ñu dem ba ni ay la yoon léegi mooy deuxième ville ndaxte lu nu fàng moom kenn du ko jeex waaw noonu la li ci des yëpp di deme waaw ba tax na euh, man li ma amal solo li ma jàpp ni moom moo ëpp solo mooy Cheikh Tidiane wax nga ko man waxoon naa ko sama njëlbeenu waxtaan moo ñu teew ñu daje waxtaan ci ñun organigramme bi nga xam ni moom lañ xalaat ni moom la Touba war a yore. tenant compte de ci compte ci yi nekk ci Touba tenir compte ci ni Touba dëkkub sëriñ Touba la muy benn titre foncier tenir compte ci ni Touba benn kilifa la am muy xalifa général de Mourides yooyu buñ ci teniree compte xool nag kon ban organigram la war a mën a am bu méngoo ak loola xool ban doxalin la war a am bu méngoo ak loola. xool yan jumtuwaay la war a soxla yu méngoo ak loola ñu bind ko waxtaan ceeg kilifa gi nga xam ne mooy borom dëkk bi woon jox ko nag parce que Touba mësuta effectivement ni ngeen ko waxee mësuta proposé dara waaye nguur gi ñu bokk maanaam état bi ñu bokk moo dema dema dem ba selon évolution bi mu am ba ñu ñëw ci euh, collectivité locale yi donc moom moo waral kon ñu war a toolaat nag bind loolu jébbal ko nag maintenant bi yoon nag Touba nag war a jébbal nag état bi ay proposition am ci naka lañu ñu xalaatee naka la ñu ni noonu la ñu bëgg ni Touba doxalee noonu amee organigramme ba mu bañ ba soxla ak jumtuwaay yam soxla ñu tudd ko spéci statut spécial wala ñu tudde ko statut particulier nu ñu ko mën a tuddee baat bi amul solo. li am solo daal mooy jumtuwaay ak organigramme ba Touba war a am pour dox selon ni tooba mel ak ni mu bindoo loolu moo am solo kon ñu waxtaan ci loolu bind ko tënk ko ñu xam ni boroomi xam-xam yi nga xam ni Touba moo leen ñor ñu bokk ci njabatu Serigne Touba ñoo ko xalaat jëbal ko suñu xalifa Cheikh Mouhamad muntaxa ñu accordé ci moom mu xool lam ciy rectifié ak lam ci kii ñu du yëpp ba mu sotti jëbal ko gouvernement dafa jot waaw dafa jot. te nag loolu du une première ci àdduna bi boo demee Espagne ci ba ci réew tubaab yi am na fa ay ay ay communes yoo xam ne ñoo ngi ci yooyu réew yoo nga xam ne nañuy doxalee bokkul ak nag yeneen communes yi di doxee asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, asalaamaaleykum maa ngi jégaluwaat euh, de ki fekk ci bunt bi laaj gi mu laaj seex Cheikh Tidiane euh, dinaa bàyyi Cheikh Tidiane tontu ko waaye dinaa ci waxit sama xalaat ndaxte moom li mu laaj. gis naa ni moom ci boppam xam na bu baax li mu laaj li mu wax ni ko expliqué na ko luy budget muy prévision la compte administratif ak yooyu yëpp expliqué na ko waaye euh, Cheikh Tidiane technicien la bu décentralisation ak collectivité locale kon kooku effectivement lu mu lu mu màcc la xam ko bu baax d'ailleurs sax war naa defal formation conseil yi nekk Touba man loolu moom maa ngi koy proposé bu ma nee ne Eh, bu loolu weesoo eh, kii tëgg techniciens yi ñooy tëgg texte ak yooyu waaye bu ñu tëggee ba pare itam yéen ñiy conseil yi yéen ñiy conseil municipal bi ñi ko constitué ñooñu ñooy acteur décentralisation bi ñooy acteur maire bi kon budget bi recouvrement yooyu ak nu ñuy fexee ba am li ñu prévenir li ñu prévoir ci budget ñu am ko ci ay recouvrement yéen seen responsabilité yéen conseil municipal boobu ak acteurs yi à commencer par le maire ak la commission finance ak yeneen commission yi ñooñu ñoo seen rôle mooy fexe ba xalaat naka la ñu mën a fexe ba révision yi ba ba ba ba ba yi di jaare yoon ba ñu am ci li ñuy séntu ci recouvrement yi ñu am ko muy budget bi ñu prévoir ñu jot ko lool nag vraiment neexul ba neexul fépp foo dem euh, acteurs yi yooyu nag ñoom ñooy def seen rôle boobu day fekk nag acteurs yi xam seen rôle xam seen kattan xam seen doole xam seen njariñ commission yi di dox na mu war a doxee di dugg sur le terrain di xalaatal maire ba pare di exécuter li ñu xalaat. waaw salaamaaleykum ah Cheikh Tidiane li nga wax euh, ànd naa ci te loolu rek laa gëm. muy suñu xalaatul suñu bopp eh, ni ñu xalaate doxalin Touba statut Touba ay la yéen kon ñeneen dinañ ñu xalaatal muy état bi te mën naa am bu ñu xalaatalee na muy doxalee du bokk ni ñu bëggee kon ànd naa ci yow ci li nga wax ni dañu ko war a waxtaanee tënk ko bind ko def ay proposition yoo xam ni buñ ko defee dinañ ci ànd te Touba dina ci gis njariñam ànd naa ci loolu bu loolu weesoo Cheikh Tidiane eh, li may wax rek nee naa yow moom eh, war ngaa def séminaire surtout eh, defal ko conseil municipal bu Touba ndaxte technicien décentralisation ak acteur décentralisation dañoo war a yëgoo dañoo war a xame waaw man mii di wax ak yow eh, doyen Mamadou Diouf moo ma formé waaye acteur la de la décentralisation pendant de longues années et ba léegi tey jii itam waaye ñun acteur de la décentralisation la xam ni war nga leen ko xamal lan mooy rôlu acteur décentralisation conseil municipal lan mooy rôlam ak responsabilité ndaxte recouvrement boobu eh, sëñ bi wax doon laajte Euh, effectivement euh, do doonul loo doon na loo nga xamee ni ci responsabilité conseil municipal la ak ci maire yam àndal ak ci surtout commission finance booba ak ña ñu teg ci loola donc lu ñooñu mooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur le terrain waaw kon war nga di waxtaan ak ñoom ci loolu yi tamit yaakaar naa ni am na solo lool waaw ndax man ci mairie mairie yi nekk ndakaaru ma nekkoon ca yëpp day gis naa ni budget nañu def ba budget yi ñu atteindre objectif budget bi prévision yi ñu atteindre leen ak na ñu def ba di duble budget yi mu doubler wu en l'espace de cinq années euh, dinaa ci citer rek bu mel ni Parcelles Assainies Dakar euh, mu ngi jógoo ci ñun acteurs ya fa nekkoon ñun ñoo ko waxtaanee xalaat ko gis trouver ay ay ay ay ay poche yoo nga xam ni yii kat jàpp nañ ni dina mën a indil commune bi xaalis te dina amal njariñ askan wi ba ñu ko defee budget mairie Parcelles Assainies dafa passé de six cent million à un milliard deux cent millions donc teyit ba ñu recouvrer ba ñu defee huit mois rek recouvrer na nañ ci un milliard deux cent millions yi recouvrer na nañ huit cent millions ya Euh, tey recouvrement yooyu tamit c'est parce que loxo yi comme su conseil municipal bépp da ciy ne ak seen i xalaat loolu moo am solo il faut que ñu leeral yooyu xam muy ñu xam rôle ak important su conseil municipal ak conseiller municipal ya nekk ca mairie ba liggéey bi rek du liggéeyu maire ak ab bureau dong déedéet loolu nag man maa ngi lay ñaan daal yow sëñ Ibrahima euh, euh, Cheikh Tidiane. Euh, boo mënee def ci daal defal conseil municipal Touba bi ma gis ay formation dana ci am solo lool lool lool lool lool jërëjëf. Hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah may nuyu daara ji yëpp di ci jiital eh, sëñ xaadim ah sëñ xaadim eh, man je en phase entièrement ak sa xalaat bi. man waxuma la lii ñuy wax sax ci maanaam ci lii ci ci au delà thème bi ci boppam euh, dafa am loo nga xam ni man euh, damaa juddoo ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi daan wër administration militaire yóbbu may wër ak sama njaboot waaye na ma xamoon murit li doon def fooru murit base murit taalibe murit nu muy war a mel ci jikko li ci ëpp solo muy doon bennoo gu ñu war a doon mu doon soppante bëggante ba ku ci nekk sa moroom gënal la sa bopp eh, mu doon eh, décomplexé am fierté ci li nga doon eh, loolu bi ma dellusee ci dëkk bi dama yoraat sama làmp tors di nit di seet ñu ko fi fu fi amati waaye bi ma la dégloo suñ Xaadim Jóob kontaan naa sama kaw bàmmeel laay waxe lu ma yëg la ci xol laay waxe kontaan naa ndaxte xam naa ni ba léegi ay murit saadexe nga fi murit saadexe nag lii base bi ci man mooy loolu nga wax noonu eh, panel bi bu ñu ko ubbee nañu bokk lépp doon bennoo lii nga xalaat nii eh, luñ koy xalaate li nga wax nii itam ci eh, sa proposition Euh, pour répartition Touba divisé ko ci ñeent ba juróomi commune rafetlu naa ko ni nga ko séddalee itam euh, ci su dee côté côté côté euh, nu nu mu koy séddalee tëli yi ci boppam tëli yi ci boppam man séddale na boppam moom itamit waaw waaw bu defee mbirum élection yi tamit ak loolu lépp man damaa jàpp ni. effectivement dafa am ay critères yu ñuy tànne ab commune ndax mat na commune wala matul commune loolu euh, Cheikh Tidiane wax na ko wax na dëgg waaye gis naa ni moom xam naa ni moom critères yooyu yëpp moom fii fu ci nekk ci fi nga wax am na matal na critères yooyu euh, li ci dekk nag mooy mën nañoo def benn comité d'initiative boo nga xam ne ni te comité d'initiative boobu mën mën mën nañ ko jëlee ci groupe bi ndaxte experts yaa ngi fi. comité comité d'initiative boo xam ne ñooy xool kon sal proposition bi naka lañ koy jëmmale xool vérifier ko bu baax ci commune yi li nga proposé ci espace ci ci ci commune yi nga proposé ak i tamit proposé yi tamit naka ban façon mode élection la ñu war a def bu méngoo ba xam ni euh, macha allah dina mucc ay te dañ ci bëgg dinañ ko am. Euh, asalaamaaleykum man de. sama mbokk mi ma fekk ci bunt bi moo tax li mu wax ci fi mu jeexalee rek laay tàmbale eh, li mu wax légitimité ak compétence waaw loolu lu am solo loolu am na solo lool li ñu wax it ci fu tubaa moom te dëgg-dëgg wartu mën a bokk ak eh, yeneen tànneef fi ay list ak yooyu ndax yooyu xajul ci suñu dëkk loolu it ànd naa ci loo tax na man jàpp naa ni daal li ma xalaate mooy bu fekkee dem nañu ba ba juboo ci ni ñuy seddalee Touba ci ay ay ay ay ay commune ba xam ni nangami commune la commune bu ci nekk nag ñu mu am benn comité boo xam ne mooy chargé wu ci loolu commune bu nekk nag ñu wax ña fa dëkk ni leen soxla nañu daal euh, ba mën naa am sax ba juróomi nit yoo nga xam ne ni ñi nga xam ni jàpp nañ ni bëgg nañoo jiite commune booba waaw su ko defee commune bu nee ñu tànn ci juróom wala fukk ça dépend ci lu ñuy xalaat euh, su ko defee ñooñu ñu ñu xool ku ci nekk itam euh, wax euh, wane ay jaar-jaaram jébbal ko nag comité ba nga xam ne moo yore loolu su ko defee bu loolu soo comité bu étudier di recevoir yooyu yëpp ba noppi comité bi tamit wàcc ci commune bu ci nekk. Eh, jéem a def benn enquête boppam ci juróom nit yooyu ñoo xam ni waa commune ci commune ba lañ jóge def ay enquête boppam ca ca gox booba laajte ku ci nekk nuñ ko xamee eh, lu ci laajte ci chef de village yi ay ay ay ay porteur de voix lañu eh, sëriñ ya fa dëkk ay porteur de voix lañu kilifa diine yéeg ñoo ñëpp ñu nekk ci gox ba ba ci ba ci garage mécanicien yi ba ci marché yi laajte daal. Euh, def mu ne enquête ci juróomi nit ñooñu ñu tànn ba xam nag ba man cee génn kenn nga xam ni gis nañ kii moo ëpp unanimité foofu su ko defee nag ñu jég jëbbal ko xalifa bi euh, ba nga xam ne bu fal jotee nag moo yore dernier mot bu ko defee ba noppi bañ fal ñooñu itam da ñooñu dañuy wëlbatikuwaat ci xalifa bi daal di jokkoo maanaam jébbalu ci moom wan ko ne ko nag ah ñun nag ñoo ngi lay déglu ci suñ feuille de Euh, ni mu yilifu woon ki fi nekk noonu lay yilifuwaat ñooñu nga xam ni tànneef yi dafa jóge ci askan wi ba noppi wasalaamaaleykum wa rahmatullah